ami et fidèle internet ginnaaw bu ñu leen nuyoo ziar leen dalal leen ak jàmm ci la scène du peuple comme ni ma leen koy defalee rek à l'accoutumée eh, dalal ay ndaanaan waaye tamit ci féegoog ñoo xamante eh, xam-xam ni moom la ñu waxtaanee tey nag ma andiwaat keneen koo xamante ni si eh, ku ni Sidi Diop wax moom moo di Momo muy Momo bu Sidi Diop ñu nar a amal waxtaan bu am solo bokk na ci li ci gën a fes nag moom moo di actualité bi ginnaaw bi Omaro yëkkatee kàddu yi nga xamante teg na ko ci ki nga xamante ni moom moo di Sidi Diop ba tax na tey na ñu ñëw seet ko nar a seq ak moom waxtaan moom moo nuyu naa la bàyyi la ñu mbokk internet yi. waaw soxna si ñu ngi siyaar xam nga di nuyu ñëpp euh, di nuyu waa Dakar. di ñëpp di kontaan ci teewaay bi. Mm-hmm. Euh, ci la wax loolu ñu laaj rek. ñu mm-hmm. tontu la incha allah. d'accord incha allah mu nekk lu am solo nga nekk ki nga xamante ni moom moo di ku jige euh, ki nga xamante ni moom moo di Sidy Diop lan nga nu mën a wax ci Sidy exact waaw Sidy li ma mën ci wax ci moom bari na. Mhm. parce que c'est un gars boo xamante ni mhm. macha allah ku baax la. ku modeste la. Mhm. ku yëg nit. ku am respect doomu aadama. parce que coow li muy bari bari bari bari. mosoo dégg Sidy gën dépassé. te chaque jour nga dégg nit ñi génn di ko yàq lu ne. te ñu koy yàq loolu yëpp. parce que Seydina moo xam ne Sidy leen gën. parce que xam nga la moo tax ma ne si leen gën. Mhm. nit chaque jour nga toog ci net bi. Mhm. di ko yàq. jox ci moom lu ñaaw. Mhm. ba léegi nii gisoo ko mu génn. wax kon kooku noonu war nga koo moytu. d'accord yaa ngi waaliw nag. ñu ne lay ñu ne ñu ne lay nëbbatoo. bul gis nit mu nekk ci musique rek. nga jàpp ni. que mooy loolu. loolu sax dinañ ci ñëw wax jeeg yu yu noonu dinañ ci xuus mais laataa loolu dama bëgg nga ñëwal ma ci décembre bi parce que ñëw na moment bi ñu toll ci lan ngeen nekk. waaw décembre bi a ah, ñoo ngi suñuy programme mun naa wax ni décembre bi programme yi bëri na ah. am nañ programme yi bëri ci décembre bi euh, euh, mun naa wax ni depuis jan depuis depuis depuis euh, le premier bi léegi ñoo ngi joué mhm. parce que mun naa wax ni le 23 dañuy joué 24 25 seize dañuy seize am na ñaari événement tu vois mhm. premier janvier dañuy joué deux janvier dañuy joué mhm. le le la le 30 dañuy joué. 31 dañuy joué événement yi bëri na. Mm. date yi bëri la quoi. waaw mun naan décembre bi calendrier bi dafa chargé. Mm-hmm. waykat bi amul mm-hmm. lu na lu war a génn sax lu bees sax incha allah ci décembre bi. Mm-hmm. te aussi aussi tamit artiste mu ngi ci album incha allah bu génnee waxkat dinañ noppi. waxkat dinañ noppi dinañ noppi incha allah. mais balaa ñuy dem ci waxkat yi. 31 ah. décembre dangeen ko choisir ki nga xamante moom moo di Wally choisir ko ñaari ñaari yi nga xamante ni si ay bedd de scène lañ mun nañ ko muy Sidi ko muy Waly jour boobu noonu du jur benn problème ci yéen. non man yaakaaroon na jur benn problème. Mm-hmm. parce que ku nekk dangay ngay liggéey rek. te bu jour baa dañ xam. Mm-hmm. kan mooy quoi. parce que coow li li muy bari bari bari bari bari bari. Mm-hmm. foo ne Waly ni Sidi. d'accord te ba léegi nii mosoo dégg fu Sidi génnee. wax lu ñaaw te Sidi liggéey. jour boobu noonu xam ni Sidi liggéeykat la. d'accord bu baax dañ xam ni waxkat ñi ne ci net bi di wax. dañu xam ni Sidi seen papa la. d'accord man moom maa ko wax. d'accord Sidi seen papa la. waaw d'accord alors mu nekkul am solo mais dañu gis lu coow li bëri bëri bëri Sidi day maye patt bi lan moo def force am ba nga xamante ni si li muy wax du bari. parce que moom Diop noppil la ko mataal sant. d'accord te mun naa xam ne depuis bi mu nekk ba mu commencé ba léegi nii cinq ans de carrière. Mm-hmm. nga def ko. Mm-hmm. ñi nga xamante ni ñoo def pile de dix ans quinze ans. Mm-hmm. ñu lay tëkkaleeg ñoom. kon Diop nga. boo nee ci gémm nag déranger. il faut am ñu lay faxastal mais borom nday ju liggéey yi ne ko jàmm. kon Sidi dafay déranger. dafay déranger waaw. dafay déranger ñu bëri ñu muy déranger bëri nañ. dafay déranger ñu bëri. looloo tax chaque jour yeneen ñeneen ñi nekk ci yeneen camp yi. Mhm. bëri nañ. Mhm. di xool nañ def lu fakkastal ko. Mhm. mais Sidi borom xool bu nice la. dafa yéene ñëpp jàmm. moo tax nit mënul ci moom dara. da ngay wax rek wala ngay jëf rek. mais li ngay def du mës a àndu. waaw d' accord li nga xamante ni moom moo di Sidi maye na ko muy muy patt bi est ce que tamit comme comme li nga xamante ni moom moom la ko ki nga xamante ni moom moo di Youssou Dieng waxee barki déebu que waal du tontu ba tax a wër Sidi di ko tontul mu mayee patt bi mm-hmm. nit boo ko amee mm-hmm. chaque jour ñu koy waxal lu ñaaw mm-hmm. mosoo gis ko mu génn wax yow nga jooy ko. d'accord génnoo. Mm-hmm. bu baax mun na baadool laa lay jàppee. parce que. Mm-hmm. lu mu bon si ji nañ lu ne. parce que lu ñu mën di mel tey moom la. Mm-hmm. kon tey bu ko nit ñi jàppee ci net bi. di dem di toog di yàq deram. ay kër kilifa di fa toog di yàq deram. di toog jaraayu jigéen ñi. yenn appartement di yàq deram. di yàq deram bëri na di ko wax lu mel ne. non bëri di yàq der kon c'est normal ñu ñu génn wax. parce que am na ñoo xamante ni dañuy wa nekk ci internet bi di wane ne ay kilifa lañ. Mm-hmm. te chaque jour ñu jotaayu jéeg ji. jotaayu jéeg ji. loo bëgg a wax foofu. li ma bëgg a wax xam nga ko. loolu laa am ci lu may wax ci côté boobu. Mm. waaw d'accord mais ñenn ci Sénégal yi dañu ni comme yéen euh, seen artistes yi wax loowu leen. dangeen war a noppi comme ñi nga xamante ni ñoom ñoo wër Wally que ñi nga xamante ni ñoom ñoo wër Sidi Diop parce que Youssou Dieng li mu wax keroog leer na ku ci mel ñi nga xamante ñi ngi wax Cheikh Mbacké day wax euh, ki nga xam moom Idaali day wax ñëpp dañuy wax yéen tamit da ngay wax bari too day wax keneen ak keneen day wax Sénégal yi leen est-ce que jotu yéen ngeen noppi comme seen attitude non duñ noppi parce que bu yàggul la envoyé nañ benn vidéo benn femme envoyé nañ benn vidéo ma gis benn boy mm-hmm. xaw ma jigéen xaw ma góor la mu xaw ma dafa gis muy wax boobu rek. kooku kan la xaw ma xaw ma ko sax man mosuma koo gis xaw ma ko dama gis ñu envoyé ma vidéo ma ne kii kan la xaw mm-hmm. ma ko. ma gis ko mu mu toog di wax naan mm-hmm. ñun suñ même bu ñu interviewé sax suñuy kanam dafay niin parce que ay góor yàlla lañ ñu xeesa duñu loj tuñ. moom dafa wax ni yéen bu leen interviewé seen seen seen kanam day niin. day niin waaw di wax ay affaire yoo xam ne affaire dof affaire dof dëgg lay wax naan ay fu fu baax laa nekk fu lii am na yoo xam ne dof la. Mm-hmm. ñun ay réel boy lañ yëmbal lañ dëkk. te fu ñu dëkk lañu tiitaroo léegi ñu appartement. waruñu di taxawaalu kër kenn demuñu kër kenn dafa taxawaalu. d'accord dañ comprendre. Mm-hmm. te roccuñu suñu tuñ ay góor yàlla lañ bu ñu gisee bu ñu ne jàkk dox wala ñu waa nga xam ne ñii ay góor yàlla lañ. ngay wax nii ci staff waale la nekk wala. xaw ma xaw ma dama gis rek dama gis ñu envoyé ma ko sax. xamoo ko waxuñu la aussi tamit nan nan la tudd non xaw ma ko. waxuñu la ñu tudd. parce que correct laa ko doo gis ñu envoyé na ma dëggal kii li wax. mu def ma ay ree mm-hmm. ma ne kii nii war nekk góor yàlla quoi. Mm-hmm. war na nekk góor yàlla. tam lijjanti waajur woon bi jigéen dem xool nu ci lu mu nekk. mu hmm? gën. lan moo dal ci waajur bu jigéen xaw ma. Hmm. côté boobu noonu loolu laa ci lu ma ciy tontu. mu lijjanti ci waaru joom bu jigéen. xam nga loolu tamit dafa am important da na ko jàppale sëñ nit ki. bi di wax di yàqu deru nit. loolu amul fexeel ba sa waajur yi nga nekkal. Hmm. ñu gërëm la ñaanal la. mais di toog di wax di rattati. te sa famille lijjanti woo leen amul sens. nit te góor nag. day nekk góor ñu xam ne góor la. te ñun boo ñu xoolee taat ñu dox moom moo dox ñu jàpp nga xam ni kii góor yàlla mu moo nga xam ni góor yàlla moom moo nga jàkkaarloo nga xam ni kii góor yàlla la c'est nga nit yi mm-hmm. nekk tout responsable mm-hmm. buñ ne affaire yi soobise rek mm-hmm. que dañoo war a yàqante suñu biir ay Sénégal lañ te dërëm gi génnul gaal gi Sidi Diop la sant Sidi santul santul beneen Diop la sant te boo nee Diop ne Lat Dior Diop

Sidi gisoo ko mukk muy ànd ak koo xamante ni day jàpp ay tuñam di rocci di dox mi ni di wengalu mhm. ñun mosoo dégg ñu ne Sidi nafiyaam mhm. wala trioom wala estafam mhm. wala ñi ko wër ay xaritam am na ay ñu borom ñaari tur yi amul mosoo ay xaritam ñu ne am na ci ñoo xamante ni dañuy def loo xam ne jaaduwul ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ay responsable lañ ñëpp ay responsable lañ dañoo papa dañoo am yaay dafa am vie beneen bu ñuy mëne basé suñu bopp ci showbiz góor da liggéey booy nañ dem liggéey te bàyyi wéeru ci ay góor yàlla. léegi yow yow ban staff wala ñan ñooy ànd ak ñan ba naan ñii ay ngóor jigéen lan wala dañuy rocc ay tun xam na tamit dama man tamit parfois tamit am na yoo xamante ni daf may jaxase xam naa ni may lay jaxase may may bëgg mu ma waxee moom moom bi ñëpp dégguñu olof génn ci li nga <laughs> <laughs> mhm. parce que mhm. genre dëkk bi dëkk yoon la mhm. damay bañ nit ne moom moo fi waxoon loolu affaire diffamation genre yooyu moo tax li ma wax. ki ma ko wax. bu seetaanee dina xam diw mii man lay waxal. Hmm? waaw kon moom dina xam boppam. waaw d'accord dañ la koy nangu alors ñu ñëw ci li nga xamante ni moom moo di daj dëpp gi ginnaaw bi nga xamante ni Omaro génn na démb euh, wax Sidi Diop wax ji mu ko wax euh, que Wally maamam la parce que moom mooy papa Sidi te Sidi te moom Wally papaam la wax jooju bi nga ko dégg automatiquement loo xalaat. waaw kooku sax xaw ma ko quoi yàlla def na xaw ma ko xamoo mm, xaw ma ko. yow amaroo ci dëkk bi ku ko xamal gis nga ko. xaw ma ko <laughs> non génn ci parce que man xamoo ko laa xam. Mm. ku gore. Mm-hmm. xamoo ka laa xam. Mm. koo xamante ni. ciment nga benn yoon ngay tooy. d'accord su nit gore. Mm-hmm. gor gore. su nga nit. Mm-hmm. bu àdduna neex rek ba nit ki la defal démb. tey tey tey tey nga ko yàq. d'accord doomu dangay baax. doomu aadama ni da nga war a nekk ciment. di tooy benn yoon. waaye tey nga nekk ci. kële suba nga nekk ci kële. Mhm. loolu du du du koy góore yàlla. Mhm. Baye Fall. Mhm. day def yëfu Baye Fall. d'accord def yëfu Baye Fall. Euh, naa nag gars yi di wax naan xaw ma am na ku génn moom mooy papa yu Sidy yi. ñeneen ñi topp ñooy maamu Sidy yi. xam laa koy wax moom. na góore. na góore parce que ku dul Baye Fall moo nekk suñu baay. ñun Baye Fall moo nekk suñu baay quoi. Baye Fall moo benn baay laa muy Omar Diop saw yaraayu ndeyam. te làqul baayam de réew mi yëpp xam nañ diwee baayam. waaw kan mooy làq baayam. xaw ma ñun fa la ñam. làqul baayam daal. làqul baayam waaw. d'accord te baayam boo ko gisee xam ne góor yàlla la. li hmm. taalibe Serigne Saliou. Hmm. mosoo ko dégg ci interview mu toog di wax. mais amaloo taalibe Serigne Saliou la xaw ma. taalibe Serigne Saliou la xaw ma de. te li ñu xam. tur bi wax ni man xaw ma ko sax. Hmm. maa ngi koy doog dégg. te bu ñu deewoon ci mbedd kii la sax dama kan parce que xaw ma ko quoi. man <laughs> Sidy Diop laa xam. bi le chanteur du peuple l'avancé de la banlieue l'homme qui mérite son nom. Hmm. waaw cinq ans de carrière mu ñëw lëmbee dëkk bi king bi. Hmm. mooy seen papa la yàlla def. king Sidy kon. nee naa la king bi. <laughs> d' accord alors li nga xamante ni Omaro wax na ko démb ñëpp jot nañ ci. te Omaro nekk koo xamante ni si nag ku yàgg ak Sidi Diop la mën nañ ko wax parce que liggéey nañu euh, su liggéeyee ak moom ba tey mu bàyyi ko dem fi nga xamante ni moom moo di euh, foofa jaraam daan ba tax mu wax ji mu wax euh, bi nga déggee loolu ak koo xamante ni jaar na foo xamante ni si ci yéen ba pare ba pare ku waxaat wax yu mel nii nan la leen di def. Hmm, damay xam ni gore moo jeex. d'accord gore moo jeex moo tax nga bëgg Omaro dafa gorewul. en tout cas daal gore moo jeex te nit ki boo ànd ak nit ki da nit ki booy ànd ak moom hmm. mu yor cent franc ànd hmm. ceeg moom hmm. bu ëllëg bu yoree ay millions mu mën a xam ni kat yow démb yéen ñaar la woon waaye mënuma d'accord nga ànd ak nit muy neex nga xëy a tàkk changé dem ci beneen camp toog ni dama koy yàq borom ndey ju baax kenn du ko yàq. d'accord mais li ma gën a métti mooy góor yàlla dëgg nga taxaw naan di woy sama baay. ci koo xamante ni mën nga ko papa mën nga ko maam sax wax nga taxaw naan mooy sa baay góor day góore. ay mais loolu waxu góor la aussi. di sama papa loolu loolu kay wax waxu góor la. mais papa day fekk mu mag la papa. Ah. man dinaa taxaw yow moom mag la. Hmm. naan sama yaay nga. <laughs> d'accord mais am yoo xam ne dañu wul soxna si. <laughs> bàyyi ngeen xel bu baax a baax ci waxu Omaro ji parce que tamit bu ñu demee ba mu ni moom bu bàyyiwul Wally Seck daf koy massacrer ak le mot massacre bu fekkee comprendre ngeen exactement moo bi seen xel moment bi ñu toll warul dal man. Hmm. damaa xam de te damaa yàgg ak Sidy te damaa xam lu bëri Moussa Kéré li nga wax. Mhm. xaw ma kan moo wax loolu. parce que yow laa ko déggee nii. ki wax loolu. Mhm. na génn ñu Moussa ñu jàkkaarloo. Mhm. j'ai des armes yoo xam ne maa ngi ko téye. arme comme. fa arme c'est-à-dire. <laughs> arme <laughs> daal en tout cas daal en tout cas daal Moussa nañu jàkkaarloo wax ji nag du bëri. nañu ñu jàkkaarloo. d'accord waaw boobaa dañu xam ni. Mm-hmm. <laughs> ay yàlla baax na daal. d'accord mais wax ji nga xamante ni Wally wax na ko ko ci li mu wax moom que nee na ko mu bàyyi Sidi Diop mu doxal yoonam mu mu mu liggéey loolu noonu jóge ci Wally lan nga si wax. waaw man loolu duma ci wax. Mm-hmm. en tout cas ce qui est l'essentiel mooy. Mm. Sidi xale la. Mm-hmm. mu ci yoon liggéeykat la. que ñoom ñu wax day avancé que ñu bañ wax day avancé loolu force la parce que kat la xel lu taxawal kër kenn dungurul kenn dungurul kenn kenn kenn dangaa dem fenn ba dégg si da nga fay dem di ñaan amul parce que liggéeykat la c'est un jeune boo xamante ni yàggul ci musique bi mais tey ñaanu ma ko yàlla bu demeen ba bàyyi way bàyyi na fi way boo xamante ni di nga xam ni Sidy mi ah liggéey na mais ñi nga xamante ni dañ fiy nekk tey buñ newee ci Moodu wax Paate wax Faatu wax bàyyi fa dara dem fee Faatu wax ba dëkk bi yëpp xam ne ñii nii kat ay naafeq lañ xam nañ seen bopp mm-hmm. d'accord ñu bari dañu jàpp ni geer bi ngeen nekk Omaro dara waralu ma ko lu may lim leen bàyyi yéen waa Suboté dem fi nga xamante moo di faramaare est-ce que bàyyi gi mu leen bàyyi dem leen daf leen metti ba tax ngeen ki ngay wax xaw xamal naa leen mm-hmm. man noonu mooy rek mm-hmm. xajuma ci kawam te hmm? ban côté en tout cas man noonu mooy xajuma ci kawam maanaam si naka xajuma parce que genre li gars yi foog mooy lan kenn bu la bàyyi rek si nga wërsëgu yàlla mm. boo xasee def ci yow mm. jeex na te mm. Sidi Diop bëri ko ci mbartal la pusu mu dem pusul mu dem mm-hmm. coow lay rek mm-hmm. mais li ñuy wax ni yëpp yëpp yëpp ngaaw la buy jàll mun ci Sidi dara ma xamal la loolu mun ci Sidi dara tous mënuñu ko tous naada d'accord ñun ay mm-hmm. te du ñu ànd ragal parce que doomu banlieue doomu géejawaay la doomu Tiwaawan la d'accord na yi xam loolu. li indi wax ji du kenn ku dul jàpp ndax dem na ci seen waal yi gis nga ko gis naa ko keneen gis na ko lam fa wax ak nam fa demee lim fa defax noonu ba wax ji génn. mais njàpp suñu frère la. Mhm. di ko nuyuwaale de passage. Mhm. kooku mun naa ne mu mën di doon ci àdduna ginnaaw yàlla Sidy Diop mhm. moo ko defar waaw. te njàpp gisuma ku gën a bëgg Sidy ci àdduna. d'accord te gis gisuma ku gën a bëgg njàpp ci àdduna ñu naan bëggante loolu yàlla ko def. cool yi li muy bari bari bari bari bari hmm. déggoo njàpp génn di wax yenn yi hmm. parce que Sidy papam la hmm. tey nit ki da nga koy nangul dañ comprendre lu mu mën di mel tey tey siri la mais tey nag feneen fu mu dem nag la mu fa def loolu vie am la moom la concerné concerné moom man moomu parce que man xam naa ni man moomu personnel maag Sidy ba à vie bu neexee yàlla muy neex moom laa àndal muy naqari moom laa àndal d'accord kon yow su ma su ma la déggee maanaam ñi nga xamante ne dañoo ñaawlu li njàpp def yow bokkoo ci ñi ko ñaawlu yow. dama ne vieux la. waaw ah, vieux la mais man. mais dama ne man moomu man. Mm, mm, mm. ba koroog may dee. Mm-hmm. dama ànd ak keneen. dafa mel ni dégg naa li wax bu baax de. <laughs> da nga ci bëgg <laughs> parce que concerne loolu njàpp parce que moom moo sentir loolu dem def ko. te ba muy def loolu am na accord waykat bi kon tey loolu amul lu ma ciy wax. Mm-hmm. peut-être nag dem na fa am lu mu wax nit ñi di yàq der que loolu vie la bu ko neexee wax ko ku ci nekk am nga am na accord voykat bi mais voykat bi dafa mel ni li si li nga xamante ni moom lañu ñu njàpp neexu ko parce que ci réponse am lay ñëpp xam ni que lii dafa mel ni ko dérange. parce que moom du fiisu kenn. bëgg sa doom da ngay dem juri. doom doomu géñam. ku bëgg sa doom da ngay dem juri. Hmm. Hmm. Siteu de barki Serigne Touba. Hmm. waykat bu ko jur. parce que xam nga si li nekk ci ginnaawam dañoo bari. ay kilifa. yoo xamante ni moo leen yor boo ko naree jotee ba ak Serigne Touba boo xëyee suba Finlande li kii di wax. engagé sama waay nga jëm. <laughs> engagé nga jëm quoi. Mm. te ñooñu sax dem nañu Finlande ba noppi. ñun ñu dem Finlande. Ah, bu yàgg. dañu noppi rek moo dem Finlande xaw ma ki ngay wax man man Sidi laa xam. ñooñu ñu ni ñoo poñe bi chanteur bi peuple laa xam en na fi trop. la sant bi gars a nappe te yoruñu. ba ak Serigne Saliou nañ ñi fi wër di àbb di lekk yoruñu yoruñu waaw ñun xam nañ ñi fiy wër di àbb di lepp ñu jeexal bari nañ de wallahi te nag li ci kanam réew li bët Wally Seck di maye oto di di di di maye kii nga naan nga naan tudduma fi ngi tudd li muy def li ngay wax ki ngay wax nii man tudduma ko fi xaw ma ko sax li muy def li muy def moom la concerné man en tout cas ce qui est l'essentiel mooy Sidi Diop le centre du peuple mm. doomu sabu joore bi mm. mais Sidi Diop mais Sidi Diop ñu bëri dañu ni dañu ni euh, il a mal communiqué mooy que réponse bi nga xamante ni jox na ko journaliste bi keroog euh, ci li nga xamante ne si euh, mm. Waly wax na ko ndax Waly waxin rek la wax ñu bëri noonu dañ ko jàpp yéen noonu ngeen jàpp loolu mais loolu lan mooy mal dañu ni ni mu waxee baaxul parce que parce que Waly daf ko wax rek ci communication non non mm. gars yi ñoo neex am na droit taxaw wax mm-hmm. parce que naa fi jamono passé ñoom taxaw seen benn xoma kan taxaw ci kaw seen bi naa ne ku bëgg fils da uti parce que kii nii ba baayam xaw ma lan ak lan ak la wax seen affaire kon tey ku nungul ñu nekk sa baay doo nekk baay kenn Sidy dafa ñafe dafa liggéey dafa commencé de zéro à mm. un à dix à vingt coow li muy bari bari bari bari parce mm. que Cheikhul Khadim bu leen teyoon ci néeg mm. tegub dof jox ko jaasi mm-hmm. ne ko ñii nii ku ci way lu baax nga génne ko barki Serigne Bamba wala nga rey ko. Hmm. <laughs> ñëppay dee de. d' accord d' accord mais mais est tamit li ñu def du firndeel li ñeen ci Sénégal yi di wax comme quoi euh, fi nga xamante ni moom moo di waa Subatel dañoo yoratut ba tax na sax artistes ya fa nekk sax dañuy daw di dem ba nga xamante ni ménageurs ak ñëpp ku ci mel ne. waaw génn dem ñeneen ak ñeneen. question man danga may gis di ma yërëm. le fait non non non non damay Sénégal yi ñoom ñoo xam kuy sa baay. d'accord fii day seen baay ñoom ñëpp. Mhm. te fii nag comme neex nga nekk fii soo nga dem fi man quoi ñun ay góor lañ. Mhm. te góor nag ba ànd ak sa moroomu góor. Mhm. da nga war a ànd ba faatu. sa moroomu góor da nga ne war a góor waaw. d'accord yéen ngeen ne fidèle ci Sidi Diop. ba faw d'accord bu neexee yàlla. man moomu. dinaa dund ba dee bu si di bàyyee way dem di dem dem di jaay wala muy def leneen damay dem jàppale ko si jaay ba parce que bëgg dafa am solo affaire bi du xaalis il faut gars yi xam loolu mais parfois tamit est doo leen def erreur ci benn affaire moom moo ko lié ak moom day liggéey ak moom da koy manager wala mu ko toppee xam nga yéen moom mun ngeen ko nekk ak moom jusqu'à la mort mais ki nga xamante ni liggéey moo ko boole moom une fois mën contrat bi mën na jeex mu dem est-ce que defoon na tax mu dem ñun si yàlla dañoo booleeg moom dañuy liggéey moom. Mm-hmm. da ngeen liggéey ak dañuy liggéey ak moom un liggéey moom un. ñu nekk ay fan sam bëgg ko parce que nit ki bala ngaa liggéey ak moom il faut nga bëgg ko. dama newoon ay fansam bëgg ko di ko bàyyi. Mm-hmm. mu dem ba gis ñu xam ne ñun ñi kat bu ñu xëccee liggéeyam na avancé mun nañu hee. Mm-hmm. moom moo kaay ñu liggéey. d'accord ma ñëw ànd ak moom di liggéey. depuis boobu ba léegi nag wax dëgg yàlla avancement laa ci gis. parce que si dee tax tey ñu bëri respecté ma. d'accord ñaata nit la ma booleel ma liggéey ak ñoom. Mhm. gis sama bopp sa ngi nit ki. Mhm. jàngal ko ni ko ni ni ni ñu nappee. mu mhm. gën chaque jour nga koy abal nan ko demal noonu. d'accord dañoo jàngal. xamal ñu ba noppi nan ñu nag. nit ki boo nekk ci àdduna. da ngay fexe am avenir bu baax. da ngay teral sa ndey teral sa baay. ñun déggoo ci mukk doo toog fenn ba dégg ñun ñii kat li ñu am bokkuñu ko suñu waajur bokkuñu ak ñi nga xamante ni dañuy toog Dakar fii logé wu loué seen appartement jënduñu seen ndey. Mm. ñun ñu nag suñu yaay ñooy doo lu ñu am bokk ak ñoom. Mm. waaw te xam nañ lépp nag dafuñu de ndakaar lañ juddoo ndakaar lañ màggee. duñu pël fuuta. Mm. duñ kamantawoon. doomu géwal lañ. pire ñoom ñooy pël fuuta yeeg kamantawoon waa bool bee. dégg nga ma ay doomu géwal pire lañ. géwal ci ndey géwal ci baay. juróom ñaari maam yëpp ay géwal lañ kon tey nit ki. noo ñu téewee rek xam nañ ko. Hmm. si ni ñu téewee moo tax ñu téewee ko noonu. d'accord waaw mais li nga xamante ni moom moo di concurrence bu nga xamante ni metti na trop diggante Waly ak Sidi Diop ba sax dafa delluwaayaal nit ñëpp mun nañ ko wax est-ce que doo toog ba yàgg ngeen sonn wala ngeen tàyyi am metti daal ngeen bëgg a bàyyi. man ci wàllum Sidi Diop. Hmm. dama ci tàyyi dama ci sonn bi lu metti waaw mais déggoo ma de mm. Mm. Sidy du concurrence ñoom ñëpp parce que mooy seen papa. lan moo leen dàq a way moo leen gën a jantal moo leen gën a civilisé moom na xale yi bëgg loolooy déranger. affaire papa nag jar na laa de ku génne may sa papa morom tamit ñun à la limite ñun duñu duñu comprendre. Sidy mooy papa képp ku yor nekk Sénégal si day sa baay. Mm-hmm. ma xamal loolu. man moomu maa képp ku yor di way Sénégal. Mm. Sidy Diop mooy sa papa. gars yi ay centre de ruq lañ mooy centre du peuple. centre du peuple bi Wally Seck lañ ko nit ñi takkal de. xaw ma ki ngay wax. ñu ngi gis ñu nekk fi ñoot dinaan ay maay ñu fi nekk ñoot na ay centre du peuple bàkki Serigne Bamba boo demee Europe bi kenn xamu leen. Hmm? ñun xam nañ ñu fi dem ñu fi nekk am na ñoom dañuy sax ma la gën la moo gën gën a bon. Hmm. nga ñëw di sa bopp international te doo international international da ba wax nii man yaa wax turam. ne international euh, nga xamante ni moom moo di disque bi. soxna si en tout cas xaw ma ñu nga en tout cas ce qui est l'essentiel mooy. Uh-huh. ñi nga xam ne dañu fi ñoo di international duñu international da ngay bàyyi ñi noo ko international nga international bi moo ko bëgg suñu papa Youssou Ndour nag taxaw waxoon ne ko yow képp kuy woy na la bàyyi xel te Youssou Ndour xam nga du ne qui mm-hmm. mooy moom mooy roi bi c'est le roi di mbalax mm-hmm. Sidi mooy relève nag yiw mm. waaw loolu nga jàpp loolu ma jàpp loolu moo am waxtaan bi neex na mais mu baax nga tàggoo mbokku internet yi ñu ngi may signaler waxtu boobu léegi. waaw xam nga di kontaan ci waa Dakar Plus. Hmm. di kontaan yow si saak suñu caméraman bi ñu ngi leen di hmm, euh, di nuyu ñëpp. Hmm. Euh, di nuyu suñu papa ma Diop Soubatel di nuyu suñu ménagère Jékki Mbisaan. ki nga xamante ni mun naa wax ni lépp bu baaxee moom la di ñu jàppale. di nuyu sama père mbay xam nga di ñu naan ko Deme Ndiaye di ko di ko siyaar bu baax di ko nuyu xamante ni lépp luñ mën a am rek. tey ci sii moom la. ñu bëggee sama jimu barito. xam nga xamante ni mooy déranger game bi jamono toll nii. mu neex mu naqari <laughs> di nuyu suñu DG Abuja nga xamante ni mën naa ni tey lu bëri dañu ciy jàppale maak barito lu bëri. Mm-hmm. waaw borom jë plastique. waaw di ko nuyu bu baax di ko gërëm. nuyu sama yaay ak sama papa leen déggee di wax Sidi Diop mooy seen papa. d' accord euh, cant ak ngërëm ñeen la moom moo di kontaan tam si jàkkaarloo bi ak li nga xamante ni moom moo disponibilité bi. Euh, di kontaan ci mbokk internet Dakar bi doon seetaan boobu ba léegi. Faara Sol mu Serigne moo leen nekkaloon ci micro bi ki nga xamante ni moom moo di Ibrahima Khalilulaay nekk ci caméra bi ñu di leen dox di daje ci yeneen invité d'ici là portez-vous bien et restez scotchés sur les programmes Dakar Peace.